وثقت برب الخلق auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum waa àdduna ñi ñuy seetaan ñëpp ñuy waxe fi ci kër seigne Chouaïbou fi ngay nek Daaru Rahman fi di Daaru khodous ñu am luñu walaj rek ñu xaar suñu kem sulay katan ci liñ ci xam moy jëf yi nga xamne bi amna fi ci Touba wala empreinte bi nga xamne bi Touba amna ko waye nak Touba suñ ko waxe tour la bo xamne bi moy taxé Touba suñ ko waxe moy aljana so demé ci alcorane day wax inna lazina amanu wa amilu saalihaati Touba lahum maanaam ñi nga xam ne gëm nañu yàlla ba pare di def lu baax Touba ñel na leen kon mun nga jàpp foofu Touba dugg na foofu soo te mun nga gis wal asri inna al insana la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bi xaq wa tawaasaw bi sabri loolu tamit alxuraan la yàlla di giñ si jamono danaa ne wóor na ne nit ñi ñu ngi si pertement ah sëf ñi nga xam ne bi ñu ngi def lu baax ba pare nekk ñu gëm léegi di dénkante dëgg di dénkante muñ kon ku wax Touba xamne lu bax rek lañuy def borom bim koy teunk so demé ci ben xasaay buñ wax madlabul fawzaini day wax yàlla dakhal ma bida dafal muy dara axlu sunna mana so degge dara axlu sunna comme suñuy wax ibadur Rahman fi moy wa ibadur Rahman so degge bida ñi ñoo dàq bida dafal tamit Touba muy dëkk xam-xam dafal Touba muy dëkk yar dafal Touba muy taxe kep ko xamne bi day wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yamul fofu dafay wax si benn xasaayam idna euh, euh, mu ne euh, law allama naasu nafahum dontu ñit ñi xamoon nañu seen njëriñ la baadaru ilayya sëñ Tuubaa mooy wax loolu doon na doon nañu gaawtu ñëw si man mais biñ ko xamul dañ koy wuti feneen kon Touba li man balaxa arba amia baadal xams Touba taxe dana am maanaam ginnaaw 4 millions di gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi ñu ne dana am xeet boo ñu xam ne bi dañuy woote Touba kon Touba tamit ki nga xam ne bii moo ko sanc ñoo tuddee boppam xaadimu rasulillah lan mooy xaadimu rasulillah alxuraan mooy waxaat wa man ata rasul faqat atallah képp koo xam ne bii rek topp nga yonent bi topp nga yàlla kon Touba sëñ bi tamit suy waxaat defal may dundal tawxiit ba pare may jaar si yoonu sunnas kenn ka kon Touba jaamu yàlla rek moo taxoon ki nga xam ne bi tey day wax nañ ko ko santale pour islam dafa ñëwoon

ki nga xamni bi moy khalifa bi ma andon nag ben fédération muy ay soxna euh ki ñu wax soxna maam xari yàlla na fi yag tànn ak wer koku doomu bintu seigne abdoulad la doomu seigne abdoulad euh bi ma ñewé mané seigne bi fi nga xamni bi naar dañ fi doon ñëw ak borom xam-xam yi di fi fekk seigne Touba mu ne ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon fi moy daru Rahman ñu tudde won ko daru nar seigne Touba naar yi mu doon am ñu jóge bitim rew fi la la doon akiyé kon fi tamit kër sëñ Chouaïb bi le seigne Modou Moustapha ak sëñ Fallou dalee alquran fi so génnee rek am ben benn bobu nek fi dañ koy gérer ça seigne Chouaïb bu fi moy université tay so gissé tay université bi nga xamné def nañ ci plus de 60 et quelques milliards mom mi mom moom Madiana boobu sëñ Mountakha bi nga xamné bi tay mo ñëwa def ko ginnaw bi ko seigne abdoullah taxawé seigne Mountakha dafa ñëw nek taawu seigne Chouaïb bu kon suñu démé ba jamono seigne Chouaïb bu seigne abdoullah commencé won université bobu après sëñ Mountakha ñëwaat di ko àggali nii ba mu tàmbali na bu yàggul rek apul amul ñeenti weer sëñ Mountakha am na ñu mu dalal alif ba sin mimara alif laam laam xasaxeer loolu matul ñeenti weer ñoo ñëpp ñu muy alphabétisé nañu kon baatin am na kon loolu sëñ Touba ñaanoon defal Touba muy dëkk xam-xam defal Touba muy dëkk leer kon loolu dugg na foofu fii koo xam ne bii rek mbàkki mbàkki nga ñëw nga jàngee fii ba si porte-parole bi di sëñ bas ak ñu bëri ñu ñu mun a lim ay sëñ Moustapha Saliou ay sëñ Cheikhouna mu sëñ Abdoulaat ah, ñu bëri rek mën nañ leen lim ay ñoo xam ne bii ay kilifa lañu fii tamit mooy kër gi nga xam ne bii képp ku fi ñëw rek jàppal ne yaa ngi biir Touba dëgg dëgg dëgg dëgg ngir sëñ Touba toog na lu tollook ñeent fukki at ak lu topp musul génn fii sëñ Touba ah, sëñ Abdou Souhaïbou deful lu dul jàngale nit doon na ñëw indi ko addi bu bëri mu wóor na ne kii addi la indi waaye du te alluwa boobu wala kooku mu doon jàngal daf ko doon jàngal rek kon kooku mooy sëñ bu sëñ Chouaïbou bi nga xam ne bii lépp loo xam ne bii sunna la rek daf ko doxal indi ko lool ba nga xam ne bii mu bëri woon ay kóllëre soo demoon si kunta kunte yi soo demoon si ture ture yi soo demoon si siisi yi ba nga xam ne bii sëñ Chouaïbou kooku moo doon wax ku fi jóge woon di dem dakaaru si taalibeem da lay naan soo demee dakaar neel diw yow si kër gi nga bokk daawul wax sax diw dama wax ko man sama taalibe nga ak yooyu kooku moo doon Serigne Souhaïbou kooku moo woote woon islaam kooku mooy borom kër gi ñu nekk tey kon li si mën a wax bëri na lool lool lool lool lool Serigne Souhaïbou tamit ah mu bokk ak Serigne Abdoul Ahad ndey ak baay mu nekkoon daanaka lennam si ki nga xam ne bii moo ko doon yaral ñu bëri bëri bëri bëri kon benn mission la boo xam ne bi bokk woon ne magam bu tedd boobu di Serigne Abdoul Ahad kon sëñ Chouaib bi daal li ñu si mun a wax bëri na lool ku dimbali woon julli di la ku fonkoon affaire médecine la ku fonkoon affaire euh, sociale la doon na jox bu guddi jël lu bëri jox ko ay nit ñu ngi wër kër gu nekk ñu am nañ fa teg da ngay xëy rek gis ab saaku ceeb wala nga gis diwlin si ëllëg sa ñu ne ah lan moo fi indi nekk ci sëñ moo ko yónnee woon kon ku doon dimbali nit kon foofu da ngay si benn xadis boo xam ne bii yonent bi day wax والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه مسلم يلا دوجوك دي يملي جليت فيك جليت بوبو ميغي ديمي نوبكم جليت كون سين شوي بو تاميت فوفو لا دوغون جير نين جيف نيغي سانت بو باخ ني يماغوم فوفو ريك وا كون سين بوك طالب لا بوبو اندو ناك ديريكتورم سيرين سيرين موي ابراهيم ديالو بوك سي كوميسيون كولترال فيدراسيون بيغا خامني بي دا فا تكلي وا توبا اك وا دكار مومو دون واخ اك يين جير نين جيف